doomu doomu NGV ñaari kër yi na nga. taw feex maa ngi lay ziar. maa ngi lay jàmm sant bu baax kay. ni nga a dem. waaw noonu la <laughs> démb conseil laa bëri quoi dem noonu la mënoon demee bés boo xam ne waruma ko woon ñaax démb bésu ndam la waa ji ku xam ne du moom noonu la koy jàppee te balaa doon a taxaw xam ñu naan doomu mbir naa lañ. waaw xam nga dara xam nga du ragal. fu mu nekkoon mu fekk ko taxaw mu gën a neex waaw. ñu gisoon mu génn mu ne première sub bi da nga def 4 euh, waaw yow xam nga ne ñëpp nañu trois bi la. non moom mi ngi wax moom mu ngi wax sama cër fekkante day wax rek. Ah. moom wax ji la jàmm. waaw moom wax ji rek la jàmm bilaa du def dara. gars yi promoteur nee ñu ngi dox sa ki nga xam ne mooy bébé Elton. waaw. non boo mbëri promoteur yi wax ah waxuñu. non bébé Elton ñeme maa jël. Ah, mais nee na moom pa nee na yow amoo fi jël ko. kooku waajee fi ne rek barki yàlla kooku <laughs> fii ba suba du ma jël barki Serigne Touba. sama combat ak Jokal laa dégg ñu ngi koy dox waaw sama combat ak laa dégg maa ngi koy nuyu baax a baax di nga ma may chance sama grand la waaw na ma may chance yu bëree incha allah. démb gis nga Pam Doy li mu bëree euh, démb victoire bu neex na mais après ñu ngeen fanaanoo defet bu métti. waaw bilaay démb kay noonu la mënoon demee xam rek sunu borom mi ko doon may démb moo ko xañ démb waaw day santaat yàlla bu baax ki ko daan war na koo daan champion moo ko daan jàmbaar moo ko daan wax dëgg ne waaw day gën a waajaat gën a ñëwaat Pape Ndoye booy la mun naam lu ne te ñu ngi ñëwaat bu ñuy ñëwaat day demee neneen ci kàttanu yàlla. tey looy dénk Lac euh, Lac Rose mi nga xam war a bëre ki nga xam ne mooy Jackson te Jackson dafa daanaka nga xam ne mooy Pape Ndoye Fass daal dafa mel ni daal géejuwaay léegi moom ah daa mel ni affaire bi moom fa la dem quoi. waaw géejuwaay nag duñ ñu daan dem ak tey. waaw déedéet. Ah. waaw ko teg. waaw fi ma ko teg mooy Lac jàmbaar la. waaw waaw Lac dafa am lu tey. xanaa waaw pire jàmbaar la. waaw jàmbaar tax mu bëreeg Lac Rose. waaw mais dafa am nu waaw waaw ma nga rax mënuñoo daanu démb ak tay. Ah. déedéet tey ñoo ko fa am. tey a ko fa am tey lu mu métti métti Grand Dakar yi zibilé. lu mu guddi guddi Grand Dakar yi ñuy zibilé incha allah waaw. sa combat ak Jackson sa ki nga xam ni mooy nu ko waxee léegi sax nu mu tuddati. Jokal taxaw na. non des na nag tuuti des na ay quelques pas yu ndaw rek. mais xam naa li des bëreetul. Ah. waaw. ah gars yi nee na est-ce que Thiatou Ndakhar dina dina mën a seet li nga xam ne mooy succès parce que gars yi nee ñu ngi lay woo doo jël ah. gars yi wax non mais yow xam nga ne ci série laa ah. commencé. <laughs> bilaay ñun duñ def loolu barki yàlla xam naa ah. démb jàppale rek xam nga te boo paree. waaw da ngay gis sa yenn nit ak yooyu. waaw moo tax mais du dara Tann Diaw. jàmm ci yéen dafa yaa baax waaw mooy dafa jël boucher gi jëf. waaw moo jël boucher. nekkoon ci lancé ñëpp ne champion la nga jël boucher ñu bëri na léegi est ce que nekku caatu Dakar dafa bëgg ci dafa bëgg a dugg ci loowu mbëru comédien yi parce que comédie bi lan ngay tontu ci loolu. waaw ci théâtre laa commencé woon. man maa dem ba doyal ci théâtre bàyyi. kon xam nga kooku du dellu ci comédie. déedéet coono yi daj ci làmb làmb ni mu méttee teel a yeew dem entraînement. waaw àll lu mu sori sori ñu dem ci kon du comédie moo ñu a te combat bi dafa am nu mu fa demee woon rek. nan la fa demee sa combat ak ni mu fa mooy lenn la rek. muy lan moo sauvé bés bi. keroog bi Pape Sagna di delloo avance boobu combat bi semaine moom mu taxaw dëgër jël ko dama ko sant parce que boobu wàññi naa ba pare ko jël baloon ko jël moo gën parce que ñu bëri toujours baasul bëriwul dafa dara dafa daw. waaw rek victoire moom champion bu ne amee na fi victoire par avertissement victoire moom avertissement moom victoire na ko démb ba sa ndam la woon quoi. mais ni nga ak poussé ñàkk a taxaw bi adversaire bu mel noonu. waaw conseil la rek bokkul ci liy yàq lamb. non non conseil la rek man moom mu taxaw ak a taxaw fu ne ma fekk ko fa waaw te balaa gën a xam ne fu mu ne ma fekk ko mu taxaw waaw. waxante ngeen ay kàddu ci géew bi la ngeen doon wax. waaw waaw xam ay waxam la yor ay comédie ak yooyu noonu. waaw lan loolu ci mën a may wax ñu tuuti rek ñu tuuti rek. waaye mooy yi muy wax rek dinaa la dinaa la duma daal la invité la nga ñëw reer si moom yooyu la doon wax. Ah. ma ne ko dama lay daan ñëw reer si ma ne ko boo ma invité may ñëw. yi mbëri di def yooyu loolu nag quoi wax dëgg na loolu moom moom su ko waxoon sax du ma ko delloo am na lu ma koy xoolee quoi. Ah. waaw parce que bu dul dara sax may na ma chance. mais Thiatou Thiatou Pape Sagna bi mu delloo avance lan la def. waaw dara. <laughs> nee na dafa juum xam xamul woon ni la quoi. waaw waaw loolu la waroon def mais moom nee na démb bi mu seetaanee lamb ji démb mi ngi def live nee na bi mu seetaanee lamb bi yàgg buuse xam moom nee na dafa erreur mais moom fu ñu toll nii bi nga ko joxee suba sax mu daan la moom moo ko wax ah. waaw Pape ñemewu ma. non non nee ni nga bëree ni nga bëree moom ñeme naa ñeme naa laa jël Pape tey bu ñu ko woon ne ko sama avant du jël. nga ne lan. Pape rëkk bi. Ah. rëkk bi ma dencoon pour Pape la. waaw Boucher du ma ko rek bu Pape ñëwoon. Ah. Pape dinaa ko dóor ma ko rek ñu bëri bëgg sa combat ak moom Ama Dia numéro bi. non Ama Dia yaay Ama Dia saa yi kay yorul certificat médical. nga def Ama Dia boo ko gaañee da ngay problème de. Eh, dëgg la Ama Dia médical leer gaañ. moom dama déchargé ay supporters am moom dafa leen teel a wax lu leer li mu mën ak li mu mënut lu mu dul def lépp la leen wax. ko gaañee heure bi ah. yaa koy yor tabaski. tabaski. <laughs>

baa ngi noonu ngeen di seetloo jàngal sa nit sa bopp sa kaat sa koñ la sa biir borom sa tàgg sa koñ la sa bañ a ngi noonu dugal si biir kër gi donc comme ngeen ko xamee saa su nekk noonu la fay demee doomu doomu NGV ñaari kër yi